mbokk yi ba léegi yéen a ngi fii ci en ci li nga xamante ne mooy télévision Al Moukhtar TV ñu ànd kook waa CONEX fii ci université Cheikh Anta Diop ci journée bi nga xamante ne moom lañ jagleel soxna Cheikhna Cheikh Saadul Abi may toog ak sama yaay soxna Anta ñag ñu gën koo xam ci tàggat yonent bi soxna Anta maa ngi lay nuyu di la ziar. maa lay fay soxna si. di la wax na yaa ngi fii ci Al Moukhtar TV. Mm-hmm. sa teewaay fii ci li nga xamante ne mooy waa CONEX woote ko di journée Cheikhna na Saadul lan la. waaw sant yàlla jull ci yonent bi. di kennal Cheikh na Cheikh Saad Bou nag di ko ñaanal fu mu tëdd yal na yàlla yokk leeram taas ñu si barkeem ñun lu ñu mel Cheikh lu ñu am Cheikh na la kon Cheikh na lu mu woote rek ñun ñëpp si war a dem fi waroon naa fees dell ba nit ñi duñ fi xat waaye ñu ngi sant yàlla bu baax nag yàlla nañ nekk nag ay taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou yàlla nañ ko yàlla def. Hmm. Euh, soxna Antal ban message ngay jàllale yi nga xamante ne mooy jeunesse xaadiriya ndax euh, dama naan waa CONEX référence lañ ci taalibe xaadir yi rawatina jeunesse bi ndax gis nañ ñi macha allah dëgg la jeunesse bi euh, ñooy lépp. ndax suñuy mag seen wàllu wéy na mais jeunesse bi ñoom ñoo jëla seen bopp li nga xam ne tarixatul xaadiriya mm-hmm. ànd ceeg te trop nag liggéeyal ki nga xam ne mooy maam Cheikh na Cheikh Sadou Abi mm-hmm. ñu mel ni waa CONEX ban message ngay lancé ak waa CONEX de du fier ci ñoom rek ñaanal nag macha allah eh, lii ñu li ñu li ñu sumb nii yàlla ko yàlla mottali ay xale yu am pastef lañ macha allah ndax lii ñu def cuune mënu ko macha allah yàlla na yokk jëm ca kanam comme ni Cheikh na wax ci fi ku li sana rek ay mbiram day yokku rek at saa su ne yàlla na ñëw ñoom ñoom na ñu yokk ci lii yàlla nañ ko def at bu ne macha allah.